ci barkeb safar le président de la république Macky Sall ñëw na fi ñëw tàggatoo euh, waaye am na kàddu yu fëjib yoo xam ni dafa am lu xew barki demb loo xam ni daa mel ni day wet wax jooju muy mel ni euh, dañoo jël lu toll ci plus de quarante cinq milliards def ko ci wàllum assainissement ci biir Touba barki démb boo jaay wala démb sax mu taw euh, dëkk bi inondé ndax jàpp nga ni assainissement bi daa am fu mu yëgul. waaw xam nga mbirum assainissement moom kenn kenn du ni lii gisuma ko parce que jant bi moom du ne fang nga tegoo say bët bu ne xam na ne Sénégal Touba moo fi gën a metti lu muy dund si ay jafe-jafe inondation 2017 ba léegi maa ngi Assemblée nationale waaye bisi si bi ñu wootee Assemblée nationale bi si gën a ëpp mu jëm Touba ci inondation 2022 bi la mu toll si 7 milliards francs fa léegi na gisuma ko kon jàpp naa ni tey Touba fi mu toll dañ ko war a jël sérieux ci programme spécial pour Touba loolu moo tax ñun ñu xalaat ni waruñu jël su toll si deux cent milliards francs CFA pour uniquement jagleelu ko maanaam inondation bu Touba. loolu moo tax ma doy ko sama programme ak sama projet bi ma am. pour deux mille vingt yàlla joxee réew mi. incha allah dinaa jël deux cent milliards ci cinq ans yi pour régler définitivement problème mu Touba ndax ku ne xam na ne fii ba sept ans Touba ci problème ci ab nawet la ñuy màggal. Mhm. te buñ ko réglé wul yaakaar naa ni pour nga mën a màggal màggal gu ñoŋ gu jag. Mhm. gu baax tamit day jafe parce que ñu ñëw ñëpp dañuy réer te yaa ngi gis ni sama mbedd kër bi taay mhm. sëkk nañ ko ñaar yoon manque na ndox mi ñetti yoon mais teewul heure bu tawee problème boobu la ñu am te li a gis ne am ñoo xam mënuñu ko am ñoo xam tey seen biir kër si li ñuy màggale mhm. mooy assainissement bu ne mooy l'eau potable ñaar yooyu da see lajj même problème mu courant bi yaa ngi gis léegi nii muy bestation bi muy sotte dama ko ñëw ma ne trois millions personnes fu ñuy dajee état war na jël ay responsabilité ba nga xamante ni ña fay ak ña fa dëkk dana leen mën a aar sàmm leen ci ndox mu ñu naan ci bolo assainissement ak bi nga xamante ni maanaam moom mooy eh, li ñuy war jëfandikoo pour seen dund mën a ñoŋ loolu nag bu fekkente ne amul ñun dañuy def ni xëy na vision bi nga xam ne war a am si Touba jëmee ko si dëkk bi moo des ba pare tamit pas-pas bi aussi tamit amuñu ko mhm. volontaire bi amuñu ko ñun lool moo tax ñu jàpp ni Touba euh, kenn koo xamante ni dafa war a ñëw pour que àggale liggéey bi sëñ Touba bëgg ci dëkkam bi tàmbali woon ko mooy assainissement bi ñu def ko def ndox mu neex mi te doy defaraat courant bi yokk ko si li nga xamante mooy quartier yi nga xam dañoo sori yaakaar naa loolu liggéey bu am solo boo xamante ni ñun par a pour engagé 2024 pour ñu mën koo def bu neex yàlla. président dafa mel ni tàggatoo na ak. Euh, waaw président de la ñëw na fi tàggatoo. bi muy ñëw bi ñëw di tàggatoo sax. Euh, Euh, maa ngi fa dem parce que man dama jot ndigal ci Serigne Bass Abdou Khadir. Mhm. ndax ku ne xam nañu Touba man maay le député de Sénégal. Mhm. Touba maanaam mel man lan am si député parce que boo xoolee département Mbacké man lan am si député. loolu moo waral taxawaay bi mu war a taxaw ci war kanu askan wi ma di ko def à tout moment ñu soxla ma ak maanaam ma soxla leen. Mhm. bi fu mbas nga amee maa ci man bi fu mbënd mi amee tamit maa man moo tax bi ma ñëwee si ndigul Serigne ma jox woon ñaar fukki moto pompe ak carburant ak ay bi ma fay ñëw tamit sëñ bi doon ma liggéeyloo ci li nga xam moo nekkoon statut spécial bu Touba bi en tant que député. Mhm. ñaar yooyu nag moom laa doon dem di leeral sëñ bi xamal ko ne ko la nga waxoon ci motu pompe yi jox naa ko la porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre mu muy magal gi. Mhm. Euh, jox ko maire yi ak chef de quartier yi. essence beeg yëpp ñu jox leen pour manque ndox mi seen kër beneen mooy statut spécial bi ñu doon waxtaanee doon liggéey tamit fii la si toll. mu ne ma léegi man ngaa xaar ba gan gi ñëw euh, loolu mooy li nga xam moom fu yóbbu woon. mais mhm. tamit muy chance boo xam ni ci histoire politique fi ba cinquante ans daan wax ni le président de la république tudd Macky Sall ba muy ñëw ci màgg di tàggatu sëriñ bi wax ni diitu nekk candidat dafay dem keneen moo fi ñëw le député Cheikh Abdou Bara Dolly fekke ko ndax loolu dafay doolu seewee politique mhm. parce que mosuma fekk tàggoo Senghor fekkuma tàggoo Abdou Diouf fekkuma tàggoo Abdoulaye Wade mhm. mais tàggoo Macky Sall fekk naa ko te loolu xam naa ne ay jàngat la yoo xamante ni jël naa ko si mhm. euh, li nga xam moom laa si xaw rek mooy la sama xarit la première dame la gis ma tooñ sax euh, Euh, naan ma maanaam mel ni naan dama lay rey. Ah, kon yow bi muy def man lay waxal yow lay waxal. mais loolu jàppee ma ko dara parce que yàgg na ma ko def parce que sama xarit la. Mhm. xam na parce que nee na damaa sonal jëkkëram. Mhm. moo tax muy wax noonu di ma def noonu. mais loolu amul benn sens amul benn problème parce que mhm. loolu man la doon waxal. Euh, mel euh, ndax dafa laaj ma Macky Sall ni ko borom mbaxane moo nekk ne dëng laale xaw bopp bi tuuti mbaxane mi ba pare ni ma dama lay rey. loolu tamit ci waxin ak jëfin yi. day bañ nit ñi jàpp ni dara la. fekk ni man mi am na ñenn ñoo xam ne man la doon waxal parce que loolu kaf la si doon jublu mhm. parce que def na ma ko Qatar ci kanamu Racine euh, Racine mi nga xamante ne mooy Racine Talla mhm. ak ñenn ñoo xamante ni fekk nañ ko jamono yooyu mu ni man damaa sonal jëkkëram ba <laughs> loolu la dama koy def loolu dara waaw loolu dara ban pour man loolu il faut que ñu leeral ko mhm. xam ne nit ku baax la aussi nit ku bëgg lu baax la kaf la si jublu woon mhm. man accepté na kaf boobu noonu mhm. xam naa ni ëmbulu ma dara lu du aw yiw mhm. ëmbulu Sénégal lu du aw yiw dafa ñëwoon gane si sëriñ bi pour ay image ak yoo xamante ni bokkul ak ni nga xam ne man mii Cheikh Abdou Badou man la doon waxal di kaf ak man di ma wax ne da ngaa sonal sama jëkkër dama lay rey maanaam di ma def noonu loolu aussi daal heure ma gisee daan xam ne man opposition radicale contre Macky Sall mais Touba moo ma ñor ndax bi ñu indigré li nga xam mooy hôpital bi sëriñ bi invité woon na ma si ba bi Macky ñëwee di wax sax ci affaire liste bi Touba bi ma ne leen ma ne ko man maay porte bulletin a bu Touba dinaa la gagné Touba ko wax noonu laa ko am am na am wax naan euh, euh, yaa ngi naam naan wax ni ci opposition radicale nga bokk waaye dafa mel ni da nga gën a jege nguur gi. xam nga li problème mooy ñiy wax noonu dañoo amul xam-xam amuñu expérience politique te ñoom seen mbir bopp moo leen ñor man xeex naa Macky Sall fukki at ak ñaar xaj naa ko Touba mboolem élection yu mas def bu sa gagné Touba ngir man tëj na ma kasso nangu na samay kër tëj na sama entreprise tax na sama doom feebar pendant fukki weer ak ñaar mi si hôpital ba léegi génnagul kooku man nan laay mën a xeexee loolu pare wàññi ko di àndaata Macky Sall mais li ma gëm mooy am réew mënuloo ko yor te waxtaan amul. Mhm. la ma gëm mooy boo amee expérience politique fi xel ak doole mënu fa àgg. Mhm. li ma gëm mooy Macky Sall mooy président rek man ma dëkk Touba nekk député Touba. Mhm. bu dee yow Touba sëriñ bi invité ma am naa sañ-sañu dem teew à tout moment ci wetu sëriñ bi pour wan ko nekk man maay député Touba teew na nit nag dañuy jaawale nit ki la mu war a def ak nit ñu wut def mhm. ñun li a def en tant que député dinaa ko def en tant que opposition dinaa ko def waaye muy Macky Sall muy ñooñu nekk di wax yëpp amul si kenn ku si sama ëllëg parce que sama lor ak sama njariñ ci loxol yàlla subhanahu wa taala nekk te Sëñ Tuubaa moom laa yaakaar moom laa gëm mhm. kon jàpp naa ni tey am naa politique bi comme ni ñu ko amee am na si ay ndomba tànk am na si responsabilité mais dama am suñu tuwaatu ñu amuñu ko moo tax ma am ak ñoom différence mhm. loolu mooy li nga xamante ne sax suñu moom laa incarné te loolu laa gëm mhm. ndax politique du tekk maanaam yow nga am a nit ñi ay relation mhm. Macky Sall li ma def tey bu fekkoonte ni ku ñuy bàyyi la bàyyi naa ko mais dama xam ni def na ma ko mais man du ma jàppal kenn jëf-jëf joo xam ne jëfandikoo ko si man te yàlla doog nangut ab dogal si kon jàpp naa loolu mooy nit koo xam da nga nitee di xalaat parce que li ma seqoon sama waajur ba bu muy dem màkk mu ngàbbal ko walisam li mhm. mu séqoon nag man ba ñuy xam bi nga koy tuumaal ak di ko tooñ bi mu nekkee si gouvernement bi ma ko défendre jamonoy Ablaye Wade mhm. loolu bu ko xooloon du ma tëj kaso mais ginnaaw na ay njuumte ba tëj ma kaso man jéggal naa ko tëj googu mu tëj kaso mais teewul man xamante woon amul kenn koo xamante ne dana tax xamante goo ko dakk mhm. waaye anduma ak moom tey xeer naa ko ba nguuram ba mu jóge fi maa ngi ci opposition bi maa ngi nekk candidat pour jiitu réew mi 2024 léegi nag nit ñi kenn euh, baax moom ñi baax mais ñi bon ñi ngi bañ mais xam naa la ma waxoon kenn du ma waaraat ni ba jant bi di fay du ma ànd ak jeexal na ànduma ak moom leen si nag après si kanam si see bokk parce que maanaam ay kuréel goo xam ne rek la parce que yeewi askan woo tey ñoo nekkoon en CPDS maa ñoom ñoom nekkoon PDS ba da nga xool leader yeewi askan yëpp man ak moom ñoo nekkoon PDS ba 2012 kooku yeewi askan mën am. ah mais àndoon ngeen ci wàllu man musuma euh, ànd ci yeewi askan man maa ngi àndoon ak wàllu Sénégal. Mhm. Ablaye Wade bi nga xam yeewi askan wi génn nañ ma ci seen loo xamante ni ay affaire tappale la ñoom ñëpp ñu ànd si muy Khalifa Sall ak Habib ñëpp ànd si loolu Ousmane Sonko rek moo si àndoon ak ay dëmbooj àndu si woon Malick Gakou